caí. bismillah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sëriñ bi yéene kaane génn àdduna woon sëriñ Pape Malick Sy bi dee bett na lool ci awoon dee ñàkk nañ kaddu ga muy waa Touba Medina Baye lew na Ñaseen Njaasaan Ceneba laayeen ba ci église bi la ak njabootu Omarien yi waaw ñëpp ñàkk nañ seen rakk da dee ñàkk tamit ga président Macky Sall ah nee na maa ngi delloo njukkal nag am ñi koo xam ni daal yombul de un homme exceptionnel El Hadj Mansour Mbaye ah de kër diine yi la dina taxal waaw battre bi jaas waaw nee na umma islamique bi ñàkk na de moom Serigne Pape Malick Sy yal na ko yàlla xare àjjana amin Serigne Saliou Thioune ne Pape Malick Sy neex a dëkkal suñu dëkkandoo la woon waaye ku neex a dëkkal la Ousmane Sonko nee na maa ngi jaale nag maanaam waa Sénégal gépp critique yéene kaay ne Pape Malick Sy de fekk na nekkoon almaxum vingt quatre heures yéene kaay ne dëgg la xandeeru elmaxum de waat na Alaaji Malick Gakou ci sursa waaw nee na Pape Malick Sy nit ku dëggu nit ku baax yal na ko Serigne Babacar Baye Mbagatalu le quotidien yéene kaa ne génnu àdduna Serigne Pape Malick Sy di porte parole ci waawoon ba dee njabootu si si ga seen kàddu ga wàcc na mbooloo ma ca dëj ba démb ëpp na laast te xoolal semaine si ginnaaw de waaw demoon nag daal di nag visité di koon xabru ba waaw ak baax gannaaw ko rek dafa waxtaane dee jébbal nañ ko boroomam dara ci mag ja te Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum réew mi ko di yéene ay seede yu de waaw nee na yàlla may Pape Malick Sy ku yàlla may direct news de moom Serigne Pape Malick Sy de porte parole waaw waaw la ko waroon yëpp def na ko barki yonent bi taatu Serigne Babacar bi lée la ko waroon yëpp def na moo doon dox ci diggante Serigne Seex ak administration yi fi moo doon dox ci diggante Serigne Seex ak personnalité yi moo doon dox ci diggante Serigne Seex ak ambassadeurs yi moo doon dox ci diggante Serigne Seex ak kilifa diine yi lée yéeni kaa gi ne Serigne Bassirou Abdou Khadre ma nga woon ci julli ga seen dénkaaneem yu mujj yi moo doon wax ne tiit na sama yaram a ngi raf raf yi tiit na ci sama bi lée l'observateur ne bi samay mujj yi de laata moo wuy ji boromam waaw nit ku baax day reetaan loon nit ñi ba na muy duggee sa bàmmeel ndax ci àllar ba ñu ngi génn barki dem boo njaay dee ndaw si koy toggal bi mu dikkee ba ne ko si Malick lan nga bëgg ma toggal la tey mu ne ko toggal ñay ngir ñëpp mën caa lekk ci ay reetaan moo tax xale généralu ci yaawoon dee Serigne Babacar Sy Mansour waaw nee na tey rek mooma mënoon tàggaleeg sama ak jili allahu akbar exclusive yéene kaa de Pape Malick Sy de ah déconfiné na république yi ña làq woon feeñ nañu mbooloo mañ gis démb ca Tiwaawoon de ak rongañ ya ñaan nañ fa tamit de xalif généralu Tijaan yow Serigne Babacar Sy Mansour waaw daal dinay gungee nag rakk ja gungee nag xari ba ba ca këram gu mu tudd allahu akbar enquête yéene kaay de bu doon xare la de dañ naan Tiwaawoon jam nañ leen démb ci xol billahi Pape Malick Sy ma ca taar ba Pape Malick Sy ma ca fasaaga éloquent Pape Malick fii ma ca mën a jàngale ma moo tax Marième Faye Sall ci critique yéen kaay waaw nee na ko si maaligam nga de waaye kenn eh, doomu jàngoro jàngay de ñoo commencé nag di siital nit ñi nga xam ne ñoom ñoo jege woon député bi la Yaya Diallo waaw bañ leen xoolee amu ci kenn koo xam ne am nga doomu jàngoro jax critique yéen kaay ne en tout cas virus ba de waaw bu doon coup d'état la dañ naan nangu na il prend le pouvoir mardi xaali maa la ko wax commencé ko ca jege ñaale Aly Ngouille Ndiaye ba dem na l'observateur ne centre de traitement coronavirus yi de waaw médecin de garde yi ah daal di ñuy gedd nag ñi nga xam ne dañoo feebar de mardi daal seen ndajeem ministre ba de moo gaawal seen gedd ga de tribune yéene kaay ne waaye général bi de ah, mbaa du ñàkk guerre sanitaire bi mardi daal mardi daal parce que wàllaa tigi ci boppam nekk ni la ëpp de ñii dee tamit ña ngay yokku de te nga guerre dafa nekk lu sérieux loo xam ne moo ta ñu dégg ko waxoon la guerre est une chose trop sérieuse pour à des militaires yéena kaa gi ne en tout cas suñu général bi la de Macky bu gaawulee jubanti ko a ah. mas mi daal xam naa ne nii muy màggee nii la boo sàgganee noon bi danañu mën de noon bi danañu mën de mar de Italie waaw waaw feebar baa ngi yokk ana ñi doon wax ne Marème Faye Sall daa feebar de waaw nee na première dame bi la dara lu wokkul ala xam wokku ko le quotidien ne en tout cas doomu jàngoro jege dugg na nag léegi ci biir kaso ya mar de Italie sur ana de te kaso ba ca tees waane commerçant ya nga xam ne ñoo nekk ca Sandaga de waaw daal dina ñuy fipp de parce que dañ leen ne nañ leen fa jóge ngir marché sans recours waaw dama ne la commerçant ya nga xam ne ñoo nekk ca Sandaga lànk nañ na ko Abdou Karim fa mën a xam li jar a xam kay mooy commandant ba ci Koumpentoum kan moo ko rey léeg si ko yéene kaa ne en tout de gendarme yi ci boppam la ñu tuumal ne ñoo rey adjudant am si saane arbitage arbitage maître Abdoulaye Sène waaw nee na bal bi nga ci na oto ba gendarme yi de nangu nañ na ñoom dañoo daw bàyyi fa commandant ba ba mu blessé ngir wuti renfort Serigne Sam Ngom gendarme la waaw nee na bi commandant bi blessé de ci ginnaaw pono oto bi ci boppam laa lay wax nii la ñu làqu bëggoon nañoo de waaye suñu arme yi woon xam naa ne li xew ci réew mi yëpp de bi war na cee wax moom Macky waaw